mbay Ndiaye yëkkati na ay kàddu dal de rafetlu li nga xam ne moom la président Macky Sall daal de wax ne moom lay defal ñi nga xamante ne ñooy waa Dakar 823 milliards yooyu yëkkati na ci ay kaddu jamale ci li nga xam ne mooy mbir yooyu loolu lépp dana ci indi ay leeral sa Seck ginnaaw bi gars yi reculé nee na luñ mën a def lii rek lañ mën a def ndaxte maa ngi kuy nëbb du ko wax moom Idrissa Seck làkk tuut te mi ngi leen di xaar ngir ñu ñëw càmbar ko naar ya nga xamante ni bi doon liggéeyloo xale yu jigéen ya waaye ba ñu ña nga xam ne ñoo doon yóbbu fu xale yu jigéen ya foofa ca diwaanu Arabie Saoudite ak ay Dubaay naar ya ci seen jëmi bopp ginnaaw ba ñu yóbboo ñoo ñu dikk naqarlu nañ lu ni mel kenn ci ñoom indi na ci ay leeral muy Zeybu ibnu Zeybu dana ca indi li nga xam ne moom la ñuy wax ay leeral Iran daw conférence ba mu doon dem ngir daa dee def waa service de Sénégal ba mu demee nag ngir fayeeku ji la nga xamante ni bi mooy koppar ya ko woowee lañ ko war a fay ci koppar la yoon revue de presse Yaya Jammeh sukaatu daa leer réew mi dañoo ne ci lëndëm ndaxte dañoo jaaxle bi président Macky Sall falug nëgëni am nañ ñoo xamante ni bii tere woon nañ leen ñu génn réew mi loola lan moo ci xew avec complicité de Ramatoulaye Sall madame Diop ñu daal di déglu élément bi soog a tëj discours je bi muy soog a jot réew mi dafa am ñenn ñoo xamante ni bii kat nen na leen bu ñu génn réew mi ngir ñu leeral seeni mbir muy ab liste boo xam ni procureur limoon na ko. Maître Madické Oumar Sarr. Ousmane Ngom Samuel Sarr Ablaye Balde ak ki nga xam ni mooy Karim Meïssa Wade ba ñu xoolee ba xool Karim Wade rek mooy ka nga xamante ni kii moom lañ ca dugal ca kaso ba diirab ñetti at ñu daal di koy génne ñeneen ñaa ngay lambar lambari fu leen neex dem fi mu toll nii nag idiri sa Seck mi nga xamante ni bii procureur nga doon bëgg càmbar ay mbiram génnaat nañ ca ba set wecc Sénégal kañ la jóge ci lëndëm tàbbi cig leer Macky Sall de bu fekkoonte ni bii ma nga ñu fekkoon ci lëndëm ku yebu jàpp ni yóbbu nañu ci kuruus ndaxte Sénégal dara du fi leer. ñu ne ci leer yitteel na nit ñi Idrissa Seck nee nañ 74 milliards procureur génn na ca la ma waxoon dencati na dossier yi ca trois la et pourtant boo demee ci prison yi yaa ngi fay fekk ñoo xamante ni bii. la ñu randal wala lañ leen tuumaal du lenn lu xamante ni bii jege na sax ab million te ñu ngay bëgg a dee ca kaso ya ñi nga xamante ni bii nag tey ñoom bu ñu jàppantee ci seen biir seeni kaso sax daanaka du seeni ay kaso moo gën boo defut ndànk dundug banlieue dund gu neex lekk gu neex dund gu neex ba nga xamante ni bii ca la ñuy génn ca kaso ba lii nag nekk na loo xam ni lu doy waar la mbiram sa Seck même bu fekkee ne état bi bëgg na mu lëndëm yow Idi war ngaa setal mbir mi ndaxte Sénégalais yi bëgg nañ mu leer te Macky yaa ne woon je ne protège les personnes donc war nga càmbar yëf yi ngir mu daal dee leer nañ ci bopp Sénégalais yi sénégalais sénégalaise mes chers compatriotes jërë ngeen jëf xam ne rek moom moo di Mbaye Ndiaye dala ko ci li nga xam ne moo di sunu émission bi leen mu di neppaat musical Mbaye noonu def Ndiaye eh, ginnaaw bi ma sant yàlla mm-hmm. maa ngi nuyu bu baax. Mhm. le président Macky Sall. encore di am mbégte ak contenté di nuyu son épouse soxna Mariam Faye mhm. di am ci moom mbégte contenté ensuite di la déglu pour nga poser ay questions. nga tontu pour ma mun waa Mbaye Ndiaye. waaw yi. milliards yi milliards waaw milliards euh, ngeen ko nar ci Ndakaaru maanaam séddale. eh xam nga le président Macky Sall ci xeeram ci mbaaxam ci xalaatam bu rafet. Mm-hmm. dafa ñëw ndakaaru mu gis ni yàgg nañoo jàmbat ay problème le président Macky dal di wax ni je veux régler tous les problèmes de Dakar. Mm-hmm. pour régler les problèmes de Dakar il fallait que le président Macky Sall euh, agisse euh, euh, euh généreusement. le président Macky il faut qu'il agisse généreusement. c'est pour cette raison. Mhm. il a pris huit cent. huit cent. vingt trois milliards. vingt trois milliards. mu nar koo séddale. c'est pour distribuer et régler tous les problèmes de Ndakaaru parce que les problèmes de Ndakaaru. Mhm. ce sont des inondations. ak euh, l'insécurité. Euh, euh, ak ak ak ak xiif di uh-huh. a dit il faut mettre paquet sur les tuyaux pour assainir tout Dakar pour assainir tout Dakar et en tambalant par. Tambal <laughs> par par. par la Pikine et la Guédiawaye. Mm, te nga ak euh, si la Rufisque le conduire de Rufisque. Mm-hmm. est extrêmement grave la canal de Rufisque. gis le président Macky Sall pare na pour daal di defar loolu. Mm-hmm. ñu ne ci sécurité mu ne je vais mettre des caméras sur les ruq-ruq de Dakar. des et pour filmer tous les agresseurs. et tous les yoxosu maan e reerandal kat yoo xam ne yaa ngi def na ko su dul noonu président Macky Sall daal di lay daal di lay def boobu mbaa moom bu dina mën a lijjanti loolu lépp président Macky Sall ñu ne ko problème mu ndox mi mu ne ndox mi dina fexe ba nga xamante ni bi ndox day am ci bandi yëpp mhm. ñu ne ko l'électricité mu ne courant bi dina fexe ba courant dootu fi coupé donc loolu si tu as l'électricité am ndox loo Mhm. et, et assainissement. Mhm. et les caméras pour sécurité. Uh-huh. léegi il faut travailler on est dans Sénégal émergent. c'est pour cette raison le problème de Dakar c'est 823 milliards. le président Macky Sall est très généreux. est-ce que 23 il est très généreux est-ce que 823 dina leen dina dina dina dina dina doy. est que dina doy dina doy Sénégalais yi. problème bi. waaw dañ koo saytu. saytuwaat ko yow doomu cees nga xamoo ci dara. ah waaw ba tey doomu Dakar mi ñoo wax ne loolu buñ ko amee baax na. ah kon doomu Dakar rek la nekk kon ka ànd nañ ci la président Macky Sall validé na ko léegi leer na Ndakaaru incha allahu rabbi problème. kon léegi kon ci Dakar kese la yem du dem Thiès du dem fenn kon ci Dakar lañ leen di dig dig nañ leen ko lii bu Ndakaaru la. Ah, boo xamut information nga ubbi sa. damaa bëgg xam ah quand même. damaa bëgg xam vraiment c'est c'est très grave. xamul émission xamul lu di am loo xam ni lii la yàlla dogal kon tuune nga waaw ba tey loolu la yàlla dogal ndax yow di wax loo xam ne la téléphone sa vous la téléphone gan yow dafa nànk bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi 88 628 99 99 114 yàllo asalaamaaleykum soxna Touka maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay nuyu Ibra Dégane kii dafa tàngal sama xol bi fay naa la man Mbaye Ndiaye li ma lay laaj rek mooy waaw mm-hmm. lii ngeen fi diggee yëpp muy huit cent vingt trois milliards yi li ngay wax nii yëpp est ce que lii du nekk France daal di xiddeem ndaxte ngeen ko yeneen régions yi. est ce que du ngeen di kokkali askan wi. te da xam ne nag diggee bor la. ñoom waaw xam nga booy Ibra dégg kenn. Eh, li kii wax li mu wax nii wax dëgg fa yàlla du wax yi du wax yi ah, le président Macky Sall waaw dafa la wax ne dafa dem diagnostiquer tout la population du Sénégal mm-hmm. saytu na leen gis na feebar bi feebar yépp xam na ko léegi bu Dakar moo ko doon tëj mooy huit cent milliards bi pikiiram pikiiru Thiès quatre cent milliards la ah. pikiiru Diourbel deux cent milliards la pikiiru Ziguinchor trois cent milliards la pikiiru Saint-Louis deux cent trente quatre milliards bu Kaolack bu Kaolack trente cinq quatre deux cent trente cinq milliards euh, bu Fatick te cent quarante cinq milliards bu Linguère bu nekk ak pikiiram ah, Linguère du raison ah, bu nekk ak pikiiram ah donc loolu nekk loo xam ni Euh, lu am solo lu am solo la vraiment euh, maa ngi lay jégalu waaye wax seer nga yow bu ma la toppoon nga ne ma bëgg saas wax dëgg fa yàlla wax dëgg fa yàlla euh, le président Macky Sall dafa wër yi waaye boo buggee jël gox yeeg goxaat yi ko dugal ci biir lii mooy wane ni maîtriser woo sa liggéey yow doo journaliste bu taxe wallaay taxewoo yow gis nga. <laughs> billaahi xaw ma si di Lamine Niass lu mu bay la ci poste bi waaye waroon na laa daq yow lii ngay li man looy liggéey. tu ne travailles pas. man dégg nga dégg nga yàq xaalisam. waaye fii dégg nga yàq xaalisam waaye ma ne fii 823 milliards na 823 milliards pour Dakar. aywaay ndeysaan pour yéen seen poche yooyu la. aywaay ndeysaan Sidi Sidi yàqkatu xaalis bu mag la. ba tey. te yàlla nag tekku na yàqkat yi. te sii di yàlla tekku na ko parce que mi ngi yàq xaalis. Eh, na nekkoon bu nekkoon Mbaye Ndiaye. ndaamal kajoor gi ñu gën ko xam rek ci sa Seck mu daal di daal di nag ci suñu plateau bi le mu di na par musical idi yaa salaamu yaa latiifu alhamdulilahi rabbil alamina mm-hmm. di muslu ci ki nga xam ni mooyu réew mi Macky nga xam ni day jekki-jekki di yëngal loo xam ni waru koo yëngal mm-hmm. waaye làqoo naa ko jumaay Tuubaa ak bu Tiwaawan boole ca bu Medine moo tax mu yàlla borom bi subhaanahu wa taala aar ma mhm. ngi lay déglu ngir nga <laughs> ci kaw aar boobu yëpp nga wax mhm. bul tax na nga nangu nag mhm. gis nga ci aar boobu ngay wax nii naan maa ngi làkk ko fii ak fii bul tax na nga naagu ci est-ce que du tournée bi moo tax ñu tëral lépp ni tega ni yépp nii à waaw xam nga mën naa ne ñu dem ba gis ni ñi ngi def ab tournée. Mhm. gis ni kat woote ba procureur di woote. daal bàyyi yeetuñu xel ci tournée bi. ñu nekkoon nañu tegandi dossier Idrissa Seck ba ñu tourné ba noppi soog a yeggale càmbar ko lu mën a ne la. bu ma mhm. ko weddi waaye li wérte wër mooy. Mhm. la ma waxoon yëkkati ko muy ay kàddu moom lay dellu. delluwaat ci ñu dégg. jusqu'à l'extinction di soleil. amul kenn ku mën a taxaw wax ni Idrissa Seck coppati na lii wala laal na fi lee xam nga lu tax ndax lan dama jàng alxuraan xam li téere bi wax li yàlla wax ci ñi nga xam ni ñi ngay jël lu ñu moomul dëgg la da ko dundee mhm. loolu bu dee xam naa ko bokkuma ak ki koo xamul déedéet xam naa na may def ba moytu loolu te jullit akkan laa mhm. ku ne xam na ni bu may tàmbali samay kàddu di yëkkati bismillaahi rahmaani rahim nga cay dégg mhm. ngir wane ni maa ngi tàmbali ci turub yàlla ban politicien nga gis mu koy def xanaa Macky ku dul man Macky du wax loolu de Macky lan lay wax waaw la muy wax moo ko xam waaye waxu ko mhm. li wér wër nag mooy man làqatuwuma mhm. maa ngi kuy nëbbu du ko wax déedéet pare naa ngir ñu càmbar ma pare naa ngir ñu càmbar ma parce que leer na ma ni lu Ablaye Wade gisul du cuune bii moo koy gis. Ah. wër na ma. Ah. ne ma lu Ablaye Wade gisul cuune bii du moo koy gis. kon Macky cuune la. waaye bakka colaas bu mag nga naan ma cuune la. Ah, kon baax na bakka colaas sàll la san. bakka colaas yëgoo lool. cuune sàll daal bakka colaas. sàll la sant kon baax na ba na bakka colaas sàll la sant. kon defe naa kon cuune la ba tey bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi 88 628 99 99 94 yàlla. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. en tout cas maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi. maa ngi nuyu baax Idrissa Seck. fay naa la waaw. waaye Idy ginnaaw ñoom dañoo dem ba ci. dellu ginnaaw. waaw. léegi man li may laaj mooy yow est-ce que doo leen porte plainte ci takkal gi nga xam ni moom lañ la takkal. Hmm. parce que ginnaaw takkaloon nañ la. Hmm. bëgg a jékki-jékki génnaat delluwaat ginnaaw est que doo attaqué parce que dañ ne qui veut la paix se prépare la guerre est que doo <laughs> continuer def. jërëjëf jërëjëf. li mu wax sax tubaaba ko wax qui veut la paix qui veut la paix prépare la guerre. Uh-huh. loolu lu am solo mm-hmm. waaye man xam nga nekkuma di guerre. damaa taxaw di leen ko def te bi ma leen di def moo gën a garaaw dem ak ñoom yoon mooy taxaw di leen wax li doxul ci réew mi mm-hmm. lépp loo xam ne jàpp naa ni waroon nañ koo def te defuñu ko ma daal di taxaw joxoñ ci baaraam ni leen lii baaxut lee moo baaxut mm-hmm. looloo leen métti ba tax ñu ne nañu yëngalaat dossier bi ngir upp làmmiñam nañ xam ni làmmiñ wi ma yàlla jox yàlla ma ko jox te moom kese ma mun a noppiloo mhm. amul kenn kuy taxaw ci suuf mën maa noppiloo dëgg la yaa ngi dégg wax dëgg la loolu nag bokk ci li tax may xamal Macky Sall ak ñoñam mhm. ne leen li waa ji wax duma ko def de duma leen plainte de waaye ba tey maa ngi toog bi xaar ngeen yeggale sumb bii nga xam ne yéen a ko sumb ba wóolu nga sa bopp sekk li ngeen sumb ba pare yeggale leen ko dëgg la may leer man bëgguma lëndëm tëb maa ngi kuy nëbbu du ko wax. kon yaakaar naa ni war ngeen koo leeral yóbbu ma ca yoon. ñu woon nag ñëpp ñi nga xam ne xamoon nañ ci dara. Mhm. lay Wade day dikk. Samuel Sarr. Samuel Sarr ñooñu ci mbuujaa mbuuj yi lañ. Mhm. waaye ab Ablaye Wade ma tax ñuy wax dil ba day dikk. Mhm. Macky sàll ma nekkoon premier ministre. day ñëw taxaw ak kan. ñooñu ñëpp dañuy teew ma teew. procureur teew juge yi teew ñu daal di wax ndax diil amoon na wala ab diil war te mën la président Macky Sall ma ne na ñëw pare naa pour jàmmaarloog ñoom ah! nguur guy reculer loo songu arrière mais wóolu nga sa bopp de bërki ne daara yi sëriñu daara yi tari ñaari wal aadiyaati ñu génn ca waaye bu ñu jugee ci man ma dabaxan leen wal aadiyaati eh, dabaxan far muuriyaati dabaxan <laughs> raamal kajoor bi dañuy daal di ànd ak Zeynub Ibnu Zeynub daat koy dala ci émission bi lee mu di Nepad Musical Zeynub nuy nan la alhamdulilahi rabbil alamin mhm. alhamdulilahi rabbil alamin xam naa mbégte ak kontaante bu baax parce que suma xalif bi c'est pas du tout clair mhm. mais il faut que je débrouille mhm. je débrouille un peu loolu xam naa dina xaw a jaxase ak français tuuti tuuti tuuti. parce que ñoom dëgg la dëgg la dëgg la olof bu baax parce que moom naar naar naar naar Dubaï. naar Dubaï Dubaï. naar Dubaï foofu laa bëgg. voilà naar Dubaï dëgg la. alhamdulilah waaye Ibnu. Zeynub Ibnu Zeynub. da ngeen a am nag problème. xam nga ndax lan. ña leen daan indil jigéen ñi pour ñu liggéey ci yéen. ña leen daan indil jigéen ñi. pour ñu pour ñu daan liggéey ci yéen. dañ leen nan dañ leen a booleeg waa dikk hmm. waaw am nga kon am ngeen problème te loolu xanaa mooy xanaa neex am du ngeen jigéen eh, xam nga wallahi dikk na liggéey liggéeyam waaye dikk man lu ne mu nga dugg foofu ah. dikk lu am fulla ak lu fulla yëpp dikk mu nga foofu dikk lu yoonam si mu yoonam si xale yu nga xam ni ñu ngi leen indi pour ñu liggéey su Dubai ak kii. ak Maroc. bu ñu ñëwee foofu kañ wallahi comme ñoom dañuy wax ni dañuy ñëw pour liggéey. Mm. dañuy raxas. raxas. Eh, raxas bool. defar kii mais bu dee da ngay raxas bool raxas cin. Mm. ak eh, toppatoo fa beer. waaw léegi léegi kañ mun mën mën naa toog sama yaram tax tax rip. pour ñu fampal ma. sama yaram bi lu mu taq. ndox mu liggéey bi ñaq mu fampal ma suma. yow mënoo koo fampal sa bopp. wàcc ci suuf fampale suma biir. waay suma wallaay mën na wàccaata si ba suufum digg bi. mu foofu. bu soo jaaree ci suuf bu wàccee ci ah, ndiggali xam na mu daal di barastiku si doodaan wallahi bu ram bu ñëwee si doodaan bi foofu euh, day barastiku mu wàccaat <laughs> bu wàccaatee tuuti encore. si doodaan bi day wàccaat suuf am na foofu euh, benn genre montagne bu nga xam ne mu ngi jaar foofu nga fompaale foofu kañ raxas raxas la. léegi jigéen ñi nga jël léegi jigéen ñi ñooy ñëw ñoom léegi fu say fu fu taqati yéen rek. bu fu jóge fu jóge eh, dañu leen fay xaalis. wallahi dañu leen a fay yéen li ngeen leen fay jar na ko xaalis bu bëri cent cinquante mille par mois. ma nga xam ne doo ma doo ma raxas. cent cinquante mille par mois léegi nag sa yaram bu méttee duñu ma bës. duñu ma bës. bu ñuy bos kañ ngay jël sa lexa bi doo ko teg ci dënn. Eh doo bos dënn benn bés dënn lu si la. boo bosee dënn nga eh. egg si biir doo ko maase. maase biir loolu di. yàlla a taxaw wax ne waaye dañu def maltraité. Eh. dépassé. massage defar sunu dikk. wallahi loolu du dara. loolu du dara. massage defar seen dikk te ñu wax dikk. ne lu mu def nii du yoon. nañu bàyyi xale yu baax yi ñu ñëw. ñuy liggéeye foofu daan doole. Mm. daan doole daan doole ci massage. bu ñu daane seen doole wala dañuy am xaalis cent cinquante mille francs CFA par mois. loolu jëmm jee ko ëpp loolu jëmm jee ko ëpp. boobu c'est très bien. cent cinquante boobu baax na. Ah. nañu bay ceexal. nañu bay ceexal loolu rek mooy kaddu bu nga xam ni moom laa yëkkati pour wax ko waa waaye dikk saf na leel waay. Ah? saf na leel. Ah? dikk saf na leel. dikk man ngay wax dikk ma maa ko wax ma tey maa ko wax. merci bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi 88 698 98 allo. ba kay allo. asalaamaaleykum. Eh, soxna Souka nuyu naa la. waay fay naa la soxna si. waaw man naar bi di wax. Eh? man man dama demoon dëkkam moom mii laa doon liggéeyal. moom mii eh. waaw moom mii laa doon liggéeyal. <laughs> waaw waaw mhm. xam na nga ma xam na nga sama baat saay saay bu mag nga. saay saay saay bu mag nga laa xam nga sama baat yéen ku ñëw seen dëkk lu ne ngeen koy def te xam nga ni loolu ngeen def tegu leen ko fenn. Ah. tegu leen ko fenn. Mhm. li te teg dañu ko fenn fe ma ne am na fu ñu ko weer da ngay déglu fu ñu ko teg am na. muy fooy ko teg xam ne fu ñu ko teg si lu ñu lay. fay nee na wëyu nga. waaw pire la wax. nee na pire parce que danga ko dina say ma ne xoolee eh, loolu ku si nekk wayu dara na wala foofu. saay saay yow réew maa ngi ne a góor jigéen bari na léegi nga gis góor nga ne ko saay a nga loolu baaxul. nee na wuyu nee na na. pire de pire. kon yow nangu nga ko. waaye dara nekkul foofu. ak a nekkul ku si nekk. Eh, waay sama ku si nekk ma maa sama laayar sama biir ba sama sama yaram bu tas seen liggéey dooma bas. boo ñàkkee bu fomp. dooma bas dooma fomp. Eh, loolu yomb na de. eh doo ma fompale ma fompale. lu ci nekk. daal daal moo nekk foofu. te man sax maa ko def nag man mi la recevoir. loolu dara nekkul foofu laay wax nañu bàyyi xale yi ñu liggéey. kenn du ñëw nañu bàyyi Dubaï am na liggéey. Maroc am na liggéey. Arabie Saoudite am na liggéey. Koweït am na liggéey. ñëw leen liggéey ñëw leen liggéey. wallahi am na liggéey. Sénégal li ñu fay du dara. ñëw leen ngeen liggéey daan sa doole raayaale sa patron. Oh, daan sa doole raay sa patron. bu fekkante ni bii. dafa eh, wis nga ma sax foon ma jël. aw samba. kër foon dara lu dul wis. wis lekk la. ñëw leen daan seen doole liggéey. kii dama wax ak hmm. eh, biisu leen ma leen wax. wayu yéen a nga bañ ba am sax seen rajo ku fi tudd biisu. kooku xam nga mun na biisu. Ah. biisu leen. dama bëgg nga xam leen. fondation servir le Sénégal ñoo ma woo xam nga damaa defoon conférence Mariam Faye ci boppam mm. jabaru président moo ma woo ah, fondation bi ñaataa ci desoon xaalis bi pour étage bi pare bi ma bi daal yaakaar naa ne mm. amee douze millions mm, mooy air plus 1 bi. waaw def ko plus de ci Marème fay la ñuy def. nañ ànd ñëwal ñu ànd. ñëwal ñu ànd. waaw. asalaamualeykum. waaleykum salaam. ah, ah Faye. Faye ah, yaa xam. mbay bu baax a ngi nii ñii xanaa ci fond. alhamdulilah. alhamdulilah. Hmm. conférence ba de. neexoon na ñoom ñëpp yow de xàmme naa la. Ah, <laughs> wallaay wallaay. wallaay wallaay. moo newoon ca kanam. na ngeen def. Mariam na nga def. ana Maki. muy fi mbaa mi ngi ci jàmm. ci jàmm bu baax alhamdulilah. Ah. dégg naa ko ci mbiru daara yi. Mm-hmm. li mu ci def. lu rafet la ndax deltu na ginnaaw xanaa yaako ko ko xelal jigéen ju baax a gi ndala na nga de alhamdulilah ah, ñun de Iran kontaan nañ lool xam nga conférence bi sóoratul kaf mhm. moom laa fa conférence mhm. te xam nga kafuma ci benn yoon xam nga loolu fondation bi jar ko yal yàlla yeggal yal yàlla yeggal wallaay wallaay dëgg yàlla kontaan nañu bu baax keroog moom ñëpp kontaan nañ jërëjëf jërëjëf ba tax na kontaan googu moo taxoon sax Mm-hmm. dëgg yàlla ma naroon def ay ndax damaa woo yaa xam mi mm-hmm. ni ko yaa ma damaa kontaan ci Iran damaa bëggoon a jël vingt cinq millions mm-hmm. jox ko ko uh-huh. léegi bi ma ko waxee loolu mu ne ma ko ne a baax <laughs> ma boo defee loolu da nga def musiba uh-huh, ndaxte Iran moom lu laal xaalis li muy def da koy def rek te yàlla tax waaw mu wax ma loolu nag wax dëgg yàlla ma xam ne loolu su ma ko defoon moom dina def musiba goo xam ne moom dina xaw a doy waar loolu ba tax na bind naa lettre boo xam ne nii pour remerciement la. moom diine rek moo ko ñor. waaw te dinaa la defal tam benn attestation diplôme bu baax incha allah yow ustaas yi bu soobee yàlla yaay seen jiit. bu soobee yàlla waaw yéen a ma si war a mën a jàppale nag bu baax a baax. incha kontaan nañ moom diine rek moo ko ñor oustaz moom mhm. eh, wax dëgg yàlla xaalis moom waxu ci dara moom diine rek moo ko ñor mhm. waaw moom daal yàlla lay liggéeyal yàlla rek lay defal de yàlla rek lay defal waxtaan ak dafa xóot mm-hmm. waxtaan ak moom mm-hmm. waaw eh, naa de mm-hmm. kontaan lool kontaan lool ndaw sëñ bi ok euh, xam naa ne Marème man la la bàyyil waaw kon nu mu ko waxee rek. ah oustaz allah macha trop trop trop. waaw kon nu mu rek ah kontaan. Euh, bi mu neree jël yëkkati xaalis bi jox la man maa ne ko boo ko defee def musiba. waaw ndax Iran xaalis ñoru ko. wax na ko ba tàyyi. parce que yëkkati benn soom xaalis di ko jox. boo ko joxee mun na ko mën na la ko def delloo. da la koy delloo diine rek moo ko ñor. dëgg la yàlla lay liggéeyal kon ni ma ko waxee léegi. xam nga Marème dafa kontaan bon ñu préparé woon eh, mbeppe ah. mbeppe waaye yaa xam wax ji bari na. wax ji bari na. waaye wane dimbali leen ma ngeen naan oustaz lu may dundee. déglu ma ma ne lu may dundee. waaye dimbali leen ma waay. lan lan mooy oustaz du fayu. waaye waxul ma lettre ah. de remerciement waay. yow lu may doyee lettre yaa xam yow xam nga. waaye doo yaa xam waay xamoo dara yaa xamadi waay. ay jox ma vingt cinq yow yaa iñaan yaa xam yaa bon yaa iñaan waaye dimbali leen ma. jàngloo nit ki mu ñëw wax ci sóoratul kaf fi nga naan ko lettre de remerciement. mais yaa doy na. bëggum baax wala na fontoola ah, waaye koo soof ba dee bu déwénee du ma leen conférence al dara ah. soof ba dee waaye goo dundal dundal ci kerem bi damay sumb waaw jaasee ka bu nga xam ne njëttu dalantinoor toq la oh Idrissa Seck mooy opposition bi leer na de moo jiite opposition bi nag fi mu ni Idrissa Seck état bi xam na ni moom doo nga ko mën a sonal Idrissa Seck la seule opposition yéen yéen kaay bi la ñuy tuddee li la ñuy wax giraawaali état ba dellu na ginnaaw reculer reculer daw na reculer <laughs> waaye Macky def na la ko Abdoulaye jàngaloon deltu ginnaaw loolu mooy li nga xam ni moom la ko Abdoulaye Wade jàngaloon kon del na ginnaaw yéen yële gaay bi ñuy tuddee lu wax ni moom la yor laxas eh Ndakaaroo jël law gàddu ga waay 823 milliards ci digge moom la <laughs> leen moom la leen Macky dig ndax danañ ko laal wala duñ ko laal en tout cas. dige la te dige bor la te Macky ñoom ameel bor aka bari ameel na ko Kaolack ameel ko Saint-Louis ameel ko Thiès ameel ko Diourbel ameel ko Ziguinchor ameel na ko gox yu bëree bëri yoo xam ne dig na leen te joxu leen digini yooyu la kaay bi ñu dee turee lu nga moom la ñuy wax ngeen mën a ëmb seen fëgg na dënnam nee ki nga xamante ni kii mooy Yékini eh mooy favori nee na Yékini ay favori de te nee na combat Giré ak bu sañoon daal Giré daan lu mën a wax leneen Modou ko si faa yoon yéen na mas noo ñoo songook ñu doon yóbbu xale ya fa nga xam ne mooy Arabie Saoudite rek ay Dubaay <laughs> ña nga dig de ña nga dig ndekete yoo la doon xew foofa yëpp daal mbirum jaam ak taay saa yu bon lañ doon def yi ba suba jàmm incha allah